mbokki Sénégal gannaaw ba ñu leen nuyoo yéen mbokki média yi mbokki Sénégal yi nekk fii ci biir réew mi ak yi ci bitim réew ñi nga xam ni ay xariti Sénégal lañu ak ñi ko bëggal jàmm fii ci Afrique ak ci àddina ñoo ngi yëkkati kàddu ci turu Front pour l'inclusivité et la transparence des élections FIT bi nga xam ni ñii fi taxaw kilifa yii fi taxaw tey di góor ak di jigéen di ay kilifa yi politique yàgg am taxawaay ci réew mi démb ak barki démb am ko tey fas ko yéene am ëllëg ngir defar Sénégal boo xam ni dañ ko mën a bàyyee suñuy doom ak suñuy sët muy Sénégal boo xam ne dina nekk ci naataange ak jàmm ak démocratie ak justice ak état de droit ci turu ñooñu laa bëgg liir tënkal leen ci wolof déclaration bii nga xam ni yëkkati nañ ko tey ñii fi nekk ñëpp signé ko ni ànd nañ ci mu di déclaration boo xam ne benn nit bind ko ñaari nit bind ko ñetti nit bind ko groupe ay kilifa ñii fi nekk ñoo ci xalaat ku ne indi ci ci sa kéemtalaay li nga mën ak li nga xam ñu ànd muy li ñuy tudde ci tubaab co-construction boo xam ne ñëpp dañu joxante loxo pour taxawal loolu nga xam ne moom lañu taxawal déclaration bi li muy wax mooy dañu jàpp ñun ñëpp ni réew mi di Sénégal dafa daanu dafa nërmeelu ci li nga xam ni moom la ñuy wax état de droit bi nga xam ni moom la fi Macky Sall fekk te si la sukkandiku moom ba ñëw au waaye tey nërmeel na ko yàq na ko salfaañe na ko muy lenn loo xam ne ñun ñëpp d'accord nañ ci ànd ci jàpp nañu itam ni fii réew mi yegg si tey ci salfaañe àq ak yelleefu citoyen yi nga xam ne constitution moo leen ko jox ci toroxal doomu aadama góor ak jigéen ci jàpp nit ñi tëj leen ci kaso ci lu dul dëgg fii ñu yegg si tey Sénégal masu koo xam ba ñu nekkee ci indépendance ba tey beneen bi ci topp itam ñu nangu ko moo di lii nga xam ni mooy Macky Sall dañu jàpp ni réew mii di Sénégal amoon démocratie boo xam ni bi ñu ciy jot ñu bari sonn nañ ci génération yi ñu jiitu xeex nañ ci ba lot am nañu ci ñàkk seen bakkan ngir démocratie sax ci biir réew mi moo Macky Sall bi mu ñëwee démocratie boobu la jël nërmeel ko yàqate ko te li koy màndargaal mooy li koy firnde mooy ñii nga xam ne ñooy leader de l'opposition sénégalaise te opposition constitution moo wane ni war naa am war naa nekk dafa am ay àq yoo xam ne dañ ko ko war a jox pour mu opposer wu au pouvoir opposition boobu lépp lu mu bëgg a def Macky Sall xañ na ko ba ci salle bi pour ñu am ko jafe na woon ndax kenn xamul woon ni dinañ ko nangoom dee ndax feneen foo dem ñu ñu gàntalal la ko opposition mënul manifester fenn mënul wax xalaatam fenn te pourtant bi ñuy xañ suñu candidat yi ñu dem wuti parrainage ci dëkk bi ñoom seen candidat ñu ngi ko jox les moyens de l'état ak alalu askan wi aar ko yiir ko taxawu ko accompagner ko pour mu dem doxi ci loo xam ne lii campagne politique lay def comme nii ko ñii amee droit def donc loolu makisal la nga koy def te muy lu ñu ñaawlu lu ñu teg suñu baaraam te loo xam ne lii itam sib nañ ko te dàq nañ ko ñu jàpp seetlu itam ni ministre bii nga xam ne mooy ministre de la justice bu Sénégal muy ministre de la justice bu Macky Sall ak ministre de l'intérieur bu Macky Sall ñu seetlu ni ñoom itam ñu ngi def ay jëf ak ay taxawaay yoo xam ni amul benn bu ci méngoo ak yoonu Sénégal ci suñuy loi amul benn bu ci méngoo ak suñu constitution wu réew li ci koy gën a wane ci firnde mooy lii nga xam ne teg nañ ko ci l'opposant Ousmane Sonko xañ ko bépp droit boo xam ne constitution ak yoon may na ko ko jël ko tëj ko ci kaso bi ci lu dul dëgg àdduna yépp nangu ni du dëgg waaye ñu gis ni même bi nga xamee ni décision de justice jib na ci juge ba nekk Ziguinchor ni nañ ko delloo ay àqam nañ ko jox ay fiche de parrainage am kii di mandataire mu yebal ko ba mu demee pour ñu jox ko ko dañ ko ko gàntal ñu yóbbu loolu ba ci sena Sénat ni nañ ko ko jox ñu gàntal ko ba ñu demee ba ci Sénat ñu xoqatal Sénat ba sena mënatul yëngu loolu lépp di loo xam ni mën nañ cee teg baaraam ñëpp a ko seetlu muy lu ñu naqarlu lu ñu daq loo xam ni bokk na si lii nërmeel état de droit fii ci Sénégal ci jamono jii ñu nekk ñu gis ni itam lii nga xam ni moo war a organiser élection muy ministère de l'intérieur ci ay taxawaayam ci ay jëfam ci ay pexeem mënta mukk organiser élection bu transparente ak bu démocratique fii ci biir réew mi ba tax na loolu itam du suñu xel yemul rek ci ñaaw ci waaye dañ ciy am taxawaay pour fexe ba loolu du am ndax Sénégal duñu ko seetaan ñu def lu ñu neex teg fi institution wala ministre de l'intérieur boo xam ni daf fiy nekk def selection ak Macky Sall dàq ñi ñu bëgg a dàq jàllale ñoom ñi ñu bëgg jàllale pour dem def parodie d'élection jàpp ni seen candidat gagné na loolu itam duñu ko nangu donc loolu lépp dafa tax élection yii ñu jublu mu am ay risques yu ci nekk risques yi sénégalais bépp bu fi nekk xam nga ni lii ñu jëm bu ñu bàyyee lii continuer du ñu dem fu neex te du ñu dem ci élection yoo xam ne dana démocratique ba tax na ñu décider jóg pour ànd joxante loxo leader yi fi nekk ak ñi nga xam ne danañu ñëw ànd ak ñun ci xeex bi pour ñu lancer front bii nga xam ne moo tudd FIT front pour l'inclusivité et la transparence des élections maa di kuréel boo xam ni dafay fexe ba képp ku ci war a bokk ci élection yi suñu candidat yi nga xam ne jël nañu ñiy tëj jël nañu ñiy salfaañi seen ak ak seen yelleef ci lu dul dëgg ñu delloo si leen en particulier kii nga xam ni mooy tey le symbole de cette lutte et de cette persécution ak répression bi di Ousmane Sonko ñu joxaat koy ay ak mu ñëw bokk ci biir élection yi donc front bi bokk na si li ko tax a jóg transparence ak inclusivité boobu ma wax ñoo ngi ciy woo bépp force politique bu nekk ci biir réew mi ñu talal ci loxo l'opposition la véritable opposition parce que opposition wu layaam layaam yi comme ni ko Dame Mbodj di waxee ak opposition boo xam ne bii bëccëg nga opposé wu guddi nga nekk pouvoir ak constellation yi leen wër ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi def defi pexe ñoo ñu taxu ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy ñi nga xam ni ñëpp am nañu détermination pour nga xam ne dañuy def opposition dañuy ñëw ànd ci xeex bi dañuy liggéey pour la démocratie du nag caagee ni dañu tëj lii dinaa ci ñëw fit lu ubbeeku la ni ñu ko tabaxee won na ko ñëpp am nañ ci droit bokk ñëpp koo xam ni jàpp nga ni war ngaa defar Sénégal war ngaa taxaw ci démocratie bi war ngaa bokk ci lutte bi war ngaa mën a bokk ci fit bu fekkee ñëw nga def acte d'adhésion bi nga xam ni ci la ñëpp njaar liir nga déclaration bi ànd nga ci te mën ngaa ñëw bokk ci boobu ci boobu liggéey pour euh, euh, garantir euh, transparence élection bi ak inclusivité ci ci loolu li donc ñoo ngi ciy woo ñooñu la ñëpp te bu ko ci yàlla àndee itam am na fi ay plateforme yoo xam ne bokk nañ ci yoo xam ni ñu ngi fi am nañ ci ay membre fit yu bokk ci lu tudd lu mel ni F24 bokk ci yeneeni kuréel yoo xam ne ñu ngi fi loolu lépp dana continuer di am ku ci ne nga def la nga war a def fit dafay def rek loo xam ne day dajale lutte politique yi fi nekk yépp pour mën cee def liggéey bi def ay convergence ba ak gën a am doole pour mën a def boobu liggéey danañu taxawal benn kuréel boo xam ne ñu ngi ko tuddee pool d'experts ak d'expertise ay boroomi xam-xam ci matière électorale ñoo ciy nekk ba nga xam ne lii ñuy wax nii euh, parrainage yi wala clé USB bi wala benn bépp pexe boo xam ne def nañ ko ci pour yàqal opposition ñu mën koo teel a xam anticiper ko ngir gàntal loolu. danañu fexe ba pool d'experts boobu lépp lu nekk ci matière élect euh, droit ak ak élection yi ak wàllu justice ak judiciaire lu mu laaj itam ci xam-xam ñooñu ñu mën cee liggéey pour jébbal ko leader yi ñu mën cee euh, tenir seen combat politique donc loolu mooy li ñu tënk tey. Euh, jox leen ko waa askan wi Sénégal jaarale ko ci yéen journalistes yi may daaneel rek di wax ni bi ñu waxee inclusivité ba noppi te muy kuréel bu ubbeeku boo xam ne lépp ci démarche am dafa dañu bëgg sénégalais yi gis ci seen bopp sans xëj ak seen ci suñu doxalin wane nañ ko ba sax li ñu dégg fan yi yéen journalistes yi ngeen bind ko nii dafa am ay parti politique yoo xam ne dañu leen a beddi maanaam yëgaluñ leen ko wala dégg naa sax ñu bind nañ leen exclure maanaam dàq nañu leen ci lu sosoogul woon mënaguñu cee dàq kenn ndax sosoogul ba kenn di ci bokk fit tey jii lay doog a sosu tey lay doog a am donc ba tey jii ñuy wax di signé ci déclaration bi mënuñoo ne dàq nañ cee kenn parce que ku ko signéegul woon ñun ñii signéeguñ ko woon kenn mënu la cee dàq muy benn ñaareel bi tudd nañ ci ñaari parti dafay baax ñu dellu ci pour que sénégalais yi comprendre suñu démarche ñu ni fit taxawal nañ ko ay opposant waaye dañ ca dàq PDS ak taxawu Sénégal information boobu wérul may profité ci yéen di ko weddi fan yi yëpp ñu ngi gis médias di ko bind amul li tax amul mooy ni ñu informé ñii fi nekk ñëpp maanaam groupe de base bi liggéey ba am loo xam ne mën nañ ko teg ci loxowu kilifa yi yónnee leen ko noonu lañ ko yónnee ñooñu itam ngeen tudd PDS ak taxawu Sénégal ñun ñii yónnee nañu leen déclaration bi ak message bu leen yëgal ni ñu ngi tabax kuréel bu tudd front pour l'inclusivité et la transparence des élections boo xam ni lii ak lii ak lii la bëgg di ko saytu ak di ci liggéey ubbil nañ leen ko xalaat leen ci seen biir parti ci kuréel yi ngeen am ak nu ngeen ci mën a xalaatee bu ngeen ci d'accord ngeen contacté waat ñu ñëw dugg ci noonu la ñëpp def képp ku ko jot xalaat nga ko càmbar ko yónnee ñu message ni ñu bokk na boo ñu nee bokk na ñu dugal ci groupe WhatsApp mooy démarche ñëpp. képp ku fi taxaw noonu lañu ko noonu nga doxalee donc bu ngeen bëggee yegg ci ngeen laaj leen ñoom ci ñoom am nañu jot boobu message tontu nit ñu ngi koy seet saytu dinañu leen tontu dinañu ñëwaat wax leen am na ci ñoo xam ne déggaatuñu leen loolu nag suñu jaan wàcc na te ba tey fii ñuy wax pour won leen suñu ubbeeku fit ku ñëw contacter ko nii lii ngeen di def bëgg naa cee bokk danañu toog déglu la danañu toog déglu la yaay kan ak loo indi ku bëgg bokk ci xeexu askan bii sincèrement pour xeexal Sénégal démocratie am dellu si ñu sauver le Sénégal parce que tey réew mi moo nekk en danger état de droit moo nekk en danger suñu justice moo daanu te suñu ëllëg moo nar yàqu ndax c'est la première fois ngeen gis Sénégal di bàbbeeku ci jeunesse am di daw di génn réew mi dafa am lu tax loolu suñu koo gis ñu ñëw ba tey mu am bu ñu ko seetul bu baax Sénégal gii nii ñu ko xamee ëllëg dana dana nekk leneen loolu nag la ñu bëgg a gàttandu te képp ku fi am xalaat ak doole ak yéene ak xam-xam pour indi ko ci boobu xeex tàll nañ la suñu loxo ubbil nañ la ko donc loolu mooy li ñu leen bëggoon waxtaan ak yéen tey bés ni ke tey ngeen jàpp ni front bi am na euh, président honorable député Ayib Daffé dina ñëw pour lii la leen plan plan d'action bi nga xam ni moom la ñu tënk ci ay poñ yu ndaw ci nu ñuy tàmbalee liggéey bii ndax dañu bëgg mu am efficacité dëggantaan ñun ñi ñëpp ku ci ne bokk nga ci ay front yu dul jeex ak ay plateforme di xeex bu ci ne def nga li nga mën dañ cay jële expérience boo xam ni moom la ñu bëgg sukkandiku pour lii nekk lu décisif et lu différent ci démarche am ci résultat am ak rigueur dina ñëw présenter la ko incha allah et fan yu néew di ngeen ñu déggaat bu soobee yàlla pour ñu mën a yëkkati loxo bi maa ngi leen di gërëm di leen sant merci xam ne ñoo bokk tey jii naa yokk yeeg wala gannaaw ëllëg waaye ñi fi bokk tey ba signé ñii may bëgg a wax la amadu Ba moom mooy représenté candidat Bassirou Diomaye fay bii nga xam ni tey mu ngi ci kaso ndax Macky Sall la ko jàpp tëj ko fa ci lu dul dëgg Roger Boissy candidat la Boubacar Camara Ayib Daffé mi nga xam ne moom mooy représentant wu candidat Ousmane Sonko mu ngi nii taxaw moom itam te Sonko xam ngeen kaam du Daat Mamadou Lamine Diallo Mamadou lamin Dianté Cheikh Bamba Dièye Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Dieng Biram Souley Diop babakar Diop Abdourahmane juuf Abbas Fall Déthié Fall Malick Gakou Bougane Gueye Dany Moustapha Guirassi Amadou li ay satu Dame Mbodj El Hadj Ibrahima Mbow Alioune Ndaw El Hadj Malick Ndiaye Alhassane Niang Moussa Niang Dabi Pouy Guy Marius Sagna Cheikh alasan Sène Habib Sy Vieux Thiané Amidou Thiaw Abdoulaye Tine Aminata Touré Seydina Omar Touré ñu koy wax capitaine Touré ñooñu mooy ñi nekk tey ci liste signataires yi bu ngeen déggee rek liste bi bu ngeen gisee ni mu yaatoo ndax trente trente cinq membre yu démarré lu lu mel ni ci politique du lu ndaw waaye bu ngeen seetee qualité wu ñi ci nekk ngeen gis image bi ak seen taxawaay ci réew mi ak ku nekk ni nga toll ak fi nga jaar ak li nga représenté nga xam ni tey opposition taxaw na ci kanam Macky Sall ñu ngi dalal doyen Mamadou Lamine Diallo mi nga xam ni aussi dugg na fi honorable député bokk ci signataires yi tudd nañ ko léegi mu ñëw euh, yegg si fii aussi ñu gis ko ci image yi pour won leen ni waaw Déthié yi tam ñu ngi may wax ni yegg si na candidat Déthié Fall président Déthié bu PRP euh, tey ma ñëw présenter leen euh, plan d'action ba nga xam ne euh, front bi moom la tënk tey bu ñu dajee donc li su jiitu mooy dem jaale ji mbokk ñu nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci mbëkk mi gis nañ ni fan yi euh, jeunes yu bëre gaañu nañ ci si géej gi notamment te daa mel ni yëngalul état bi donc ñun waa FIT fas yéene nañu dam jaale ji seen dam jaale ji seen mbokk yi donc pour massawu leen ak wane suñu solidarité par rapport ak loolu leneen li mooy euh, dajale ay borom xam-xam ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllum élection ak ci wàllum droit pour ñu jàppale ñu ci lépp loo xam ne mooy surveillance processus électoral boobu te surveillance processus électoral boobu moo ngi commencé ci parrainage yi ci wàllum fichier électoral bi ci inscription yi ci carte électorale bi ba ci supervision ci biir bureau de yi ak centre de yi di wax tamit ne nañu dajeek lépp loo xam ne mooy ay kuréel yoo xam ne ci wàllum politique muy wax nañ ko F24 geneen coalition yeeg ak lépp loo xam ne waa société civile lañu pour boole suñu doole xeex xeex bi parce que xeex bi ñoo ko bokk fexe tamit la nga xam ne mooy décret ba Macky Sall jël tas Sénat indi ay membres yu bees yoo xam ne ñeen ñi ci parti politique am nañu bokk donc loolu tam décret boobu nañu bokk si ñu koy attaqué donc ñun candidat à la candidature yi nañu signer recours boobu pour que ñu annuler décret boobu su ko Macky Sall retiré wul leneen li mooy fexe dajeek syndicat yi nga xam ne jamono jii ñoo ngi yëngu di ak seen i revendication pour déglu leen waxtaan le waxtaan ak ñoom xool naka nañuy booloo pour xeex bi nekk benn dajeek tamit xaritu Sénégal yi mooy partenaire technique et financier yi ak ambassade yi waxtaan ak ñoom ci situation Sénégal ñu teel a artu balaa crise préélectorale bi di déboucher sur une crise électorale fexe tamit communiquer ak sénégal yi ci support yépp ci réseaux sociaux yi ci plateau yi fépp fu ñu mën a waxtaan ak sénégalais yi pour sensibiliser leen situation bi ñu mobiliser leneen li daf ay ndaje ay manifestation ay marche yoo xam ne nañ ko def fépp ci dëkk bi dans les quarante six départements ak si diaspora bi pour fexe élection yi nekk ay élection yu inclusive ak yu transparente ak ministre ba nga xam ne mooy organiser élection yi mu doon ministre boo xam ne du bokk APR du bokk Benno Bokk Yaakaar day nekk un ministre neutre et impartial comme nu ñu ko defee woon en 2012 comme nu ñu ko defee woon en 2000 donc mu nekk une exigence boo xam ne fit moo ngi koy laaj donc loolu daal mooy plan d'action ba nga xam ne moom la ñu tënk tey te du ñàkk dina am ay yeneen action yoo xam ne nañ ko ci yokk euh, gën ko dëgëral jërëjëf